maa ngi nuyu Sénégal yëpp di jiital nuyoo bi ci réew nuyu nag conseil municipal bi bu baax a imam yi délégué de quartier yi jigéen ñi jeunes yi ASC eh, du gudd mais dinaa résumé bi léegi sax defoon nañu sax jàll wala ceeb la ñuy séddale boobu séddale wuñ ceeb li ñu indi fii tey mooy dañu gis ne bi door feer bi duggee senegal ak léegi si ñaari fan ci weeru mars ñun ñeenteeli fan ci weeru mars lañ jógoon ci ndigalu président xam ne li dugg ci àdduna bi li taal daay gi ci réew mi dina dugg suñu réew ñaan nañ ba sonn nag yàlla mooy dogal ñeenti fan ci weeru mars lañ duggoon ci terrain bi dem ci école yi dem ci daara yi dem ci poste santé dem ci marché yi waaye loolu bu ko yaafus defee day defe ne matal na te suñu kilifa ku ne xam na ne muy Macky Sall li ñu bëri tële da ko réussir mooy am na politique boo xam ne def na ko ba réussir na lu bëri ci xewal looloo tax tey ñu dellusiwaat maa ngi gërëm IEF ak kàddu di wax tey li ñu fii mooy jël bu mel ne gel Le melne thermoflash lu melne masque lu melne sabu de lu il n'y ay que boo brigo yele juroom fukki brigo lu ñu litre ak juroom fuk andi nañ fi tamit thermoflash li ñaari téeméeri bokkul ak liñ ci joxe woon ma lu bari daj non la mel ci gel Non, la mel ci non la mel ci masque yi noonu la mel ci eau de bi ndax xeex bi mënoo def mu te yi ma lay wax matu moy nga am ndox am fu ndox mi nek bu sel am sabu am kotal am zel am gan go xane wala ku ñew ci kër gi nga wala ci garage bi nga xol lu mel loolu tax nak séddale bi ñu bëgg def dañ ko delloo ci nak tek ci loxo jeune yi nga xane comité de gestion bi ñu créé ñom lañ ko jébbalaat juma ju ne ci dëkk bi incha allah daañ fa teg bërigo daañ fa tek thermoflash dañ fa tek zel ak lepp la fo war a marché yépp tamit dañ fa tek lolu marché na dama yok thermoflash parce que moo ëpp nit marché bu ne dina 3 lolu xalé liñ ko dénk ligé boobu garage magi muy 52 ak yoyu garage bu ne dina am 3 yi dafa am solo lolu buñ ko mané nak ki ñu ci accompagné mooy le commissaire ki ñu ci accompagné mooy yi nga xam ne ci quartier yi nañu jaxaay jóg bokk ndey bokk bàyyi parce que bu ñu duggee suñu dëkk nañu xam lu ñu ëndaale kuy dugg nañu xam loo génnaale feer bu teelee dugg ñu xam la day dëñ mu gën gaawe loolu ma tax ñii yéen soo chef de garage si am garage bu ne ñett ci garage mag yi muy yii bëri goy tamit ñu fexe ba saabu bi ak yi mu àndal yëpp ñu saytu ko bu baax su loolu amee képp koo xam ne ñëw na ci garage bi bëgg a def saboté na ngeen jokkoo commissaire ak commission yu ko yore daañu ko réglé bu ngeen gisee ba ñu déparé ma teel a wax ne nañu fat yenn yenn quartier yi lii laa doon bañ mais nag xodd ba nga lakk gën nañoo jógaat kon garage laay gën a ñaax marché yi tamit fu ngeen fi gis gan bu fi dëkkul di fi jaay see na ko signalé ñu génne ko mu jëm fa ngoreer parce que wàllu yaan bi mooy di coow yi kon nag ci garage ci marché yi ci jumaa yi ci jàkka yi ci lieu de culte ba ci euh, église bi ñoom ñëpp lay jox terme flash ak matériel incha allah disponible na mat na daañu ko teg seen loxo waxuñu bu jeexee dañu mottali mat de waaye daañu ànd ak yéen utiwaat ñuy ñaan nag képp ku yeewoo di doomu jaxaay te dëkk bi ñor la ak képp koo xam ne yaa ngi ci gouvernement Sénégal yàlla may la ndombal tànk yàlla may la wërsëg na nga jël sa loxo jàppale président mais nga jàppale askan te ñu génn ci biti jàppale nit ñi te yàlla tax delloo ko suñu bopp falu ñu pour ñu nëbbut man day tànk lii mi ngi fi ak bu fi nekkul koroog laa gën a ñi askan bi lu ma si jëlee rek xam naa yërëmal suñ borom la di sant imam yi di sant délégué di sant ñu fi teew ñëpp di ñaan yàlla feewar bi jóge fi maa ngi baalu ak ñëpp di baalu ak ñëpp di président liggéey bi moom yàlla réussir ko jërëgéen jëf jërëgéen jëf